di am mbégte encore une fois ñu ngi amaat mbégte euh, fekkee euh, jataay bi mu doon euh, CDD boo xam ne dañoo aadawoo di ko organiser saa yi ñuy dëgmalee Kazu Rajab di nuyu suñu kilifa yi fi toog fi muy sëriñ Modou Xaban Mbakke ak sëriñ Ahmadou Badi Mbakke di leen ziyaara di leen euh, joxaat seen wàccuwaay di sàkku seen ñaan li nga xam ne ñu ngi ko dëgmal yàlla defal ñu si ndam màggalu Kazu Rajab wax nañ ko fii dayo bi jaratul ñu si ñëwaat ndax dayo bi dafa wone boppam at bu nekk bu ñu ñëwee te ak bu ñuy jublu rek dayo bi day gën a yokk te ñeent fukki at ak lu topp mi ngi nii ñu ngi koy organiser donc mën nañu jàpp ne si wàllu administration wàllu état li ñu doon ànd ak euh, euh, comité organisation bi loo xam ne daf fi samp ba pare kuy fonctionnaire boo ñëwee rek da nga siy tegu di jéem a xool ubbi sa bët ak sa nopp di xool lan nga si war a mën a jël rek teg ko si pour mu gën a baax te loolu moom nañ fi dégg si kàddu yi ñu yëkkati yëpp euh, fii euh, di jàpp ne euh, li nga xam ne comité organisation bi yëkkati ne ko gannaaw ba mu gërëmee service technique yi fi nekk yëpp si ni ñu taxawee woon daaw li ñu fi yëkkati te mu gën a fës benn bi si wàllu sécurité bi dañu ne rek ñu gën a xool laissez-passer yi gàllankoor yi muy jur ndax bu ñu joxee nit ñi laissez-passer yi bu ñu demee ba cérémonie officielle bi dañu doon dem ba gis ne dina am ay kilifa yoo xam bu ñu ñëwee ak seen laissez-passer yenn euh, force sécurité yi comme ñoom dañuy ñëw rek pour événement bi dëkkun ñoog ñoom duñu leen xàmmee duñu mën a ràññee ñu ne xool il faut ñu xoolaat loolu loolu ñu gën leen ci euh, comité d'organisation gën ci liggéey ak force sécurité yi ba nga xam ne loolu dinañ wàññi jafe-jafe bi euh, lu gën a lu gën a baax beneen mbir mi ñu yëkkati mooy euh, si autoroute Ila Touba bi autoroute moomu fu ñu ko teg rek pour gaawaay la bi ñëpp xam nañ ko donc bu ñu demee ba jàpp ne euh, si circulation bi dafay mel ne dafa am loo xam ne dafay yeex donc xam naa bu oto yi di stationné war a fay foofu la yeexaay bi di nekk donc liggéey bi war nañ ko gën a yokk foofu pour que ñu xool lan mooy gàllankoor bi ñu yëkkati ko bu ko defee loolu gën a gën a gën a gën a jumtu te loolu aussi dinañ si dinañ si jóg dinañ ko wax bu ko defee ñu xool ak comité d'organisation bi ak ñiy gérer illa Touba vraiment li yan mesure nañ si war a mën a jël ak force sécurité yi pour ko loolu euh, mën a mën a mën a dañ leneen li mooy sapeur sapeur aussi wax nañu ñoom disposition yi ñu war a jël rek nañ ko jël surtout que bu ñuy wax événement yi sax ñoom ñoo si ëpp am am euh, li ñuy wax euh, euh, mbuus mi gën a fees ñoom ñoo ko war a yor ndax événement spécial la ñoom dañu am disposition spéciale ndax prévention fagu moo gën fagaru moo gën fagu noonu nañu koy waxee bu ñu jëlee si wàll paj mi également comité d'organisation gannaaw ba mu ba mu amee mbégte également comme ni ñuy wax rek si disposition yi ñu jëloon daaw ren li muy yokk rek euh, dafa gën a ñaaxaat euh, secteur santé ñu gën a xam ne euh, jamono yi ñu nekk jamono épidémie la waaw loolu moom ñëpp xam nañ ko donc matuwaay yi ñu gën ko yokk loolu sax heureusement ba fekkoon na état Sénégal moom jël matuwaay yooyu si fan yi yëpp ñu génn ndax xam nañu ne épidémie bi épidémie internationale mondiale la fu mu nekk nii ku nekk réew bu nekk da nga war a jël say disposition am na réunion yu ñu jot a def te médecin chef moom xam na ne euh, fii Touba euh, même bu dul woon euh, màggal gi matuwaay yooyu dañ ko war a jël ndax bés bu nekk ñu gis fii ay doomu aadama yu takku di dem di ñëw ndax dëkk bi moom moo toll noonu te loolu mu ngi siy liggéey bu baax mi ngi siy liggéey ak ñun bu baax si wàllu sensibilisation bi te xam naa dinañ yokk ci sensibilisation bi si jour événement bi day si euh, wàllu hygiène également wax nañ ko docteur ñëw na si euh, commandant également ñëw na si moom it am na si pàcc bu wér comme ni si euh, waa sapeur pompier amee prévention bi moom daf si am am solo trop ñoom dinañ jël ay dispositions également xool si wàllu côté ndox bi bassin d'eau yi parce que xam nañ ne Touba bëri na ay bassin bassin yi sax lu tax nit ñi di ko def jàpp nañu lu bëri ne événement yu mel nii moo tax waaw kër yi di wut bassin donc ñoom dinañ dinañ gën a xool loolu d'ailleurs am na réunion bu ñu defoon ba doon wax ne il faut que ñi yor bassin ñu leen di wax ne am na technique yu gën a yu gën a avancé si wàllu bassin yi nga xam ne dinañ dem ba koy tëj parce que ndox quand même bu ñu ko dul tëj di ko exposé nii foofu la problème yi di gën a bëri si wàllu wér-gu-yaram loolu aussi mën ngeen si profiter bu ko defee ñu jàllale waale loolu nga xam ne mën nañ si liggéey du du lu cher nit ñi mën a am di mën a tëj bassin yi nga xam ne dinañ mën a aar xale yi ba pare ar wér-gu-yaram wér-gu-yaram nit ñi si si loolu également euh, circulation camion vidange yi circulation camion yi ñu xool ko bu baax également voilà ñu contrôler ko veiller si ba nga xam ne même fi ñu koy dem di ko sotti du indi euh, loraange ak gàllankoor bu bu bu bëri kooku aussi dinañ si liggéey bu bu baax bon nombre nombre de voyages euh, camion vidange yi mairie bi moom jël na si ay ay ay engagement si kéemtalaay kàttanam euh, leneen lu ñu si mën a yokk rek ñu ñu xool lu ñu si yokk rek bu ko defee loolu aussi mu nekk mu nekk euh, luy luy satisfaction comité comité organisation xëy na li comité bi yëkkati mooy yenn quartier yi nga xam ne wër na pencu sëñ Fallou defe naa foofu la xayra Touba xayra yooyu euh, quartier yooyu nga xam ne jigéen na fi nga xam ne fa la ñuy cérémonie bi fa lay ëppee fa la nit ñi di ëppee que ndox mi quand même ni mu doon euh, xaw a manqué problème mu pression bi que ñu ñu gën si xool nga xam ne bu fekkee lu lu loo xam ne mënuñu ko mënuñu si jublu si si fan yi loolu ñu teel ko jël matuwaay ba nga xam ne camion citerne yi dinañ mën a ñëw euh, pallier pallier loolu parce que bu ñu amee jafe-jafe ndox fenn rek problème hygiène commencé ñëw et day répercuter sur problème santé euh, yi ñu yi ñu yi ñu wax sax